اللهم اجعلنا من المتقين الذين تتقبل منهم ولا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولا تحرمنا أجر هذا العمل ولا أجر خيره أم يا رب العالمين بك جلي تيلف كيف نقبل نتيارو كوروين ينك تي أتم جني أجيان تيمير أجيان فك أجروم بسيدنا محمد قدائما قدم مدينة يموك أه ñetti fan ak yaar ci weeru mars atum ñaari junni ak nit ak yent juddu yonent yàlla Isa ci ati nasraan yi ñuy santal yàlla ci weeru tedd yi di ko ñaan mu gën noo defal kàttan gun ko mën a jaamoo eh, dañuy sob suñu jat jataayu tey rek fi ñu yëkkate woon suñu jataay ci àjjuma ji jàll ci bayaan bi ci téere Cheikhna Cheikhul Xadim bi mu dajale ci lenn ci waxi waroom xam-xam yi ci li nga xamante ni kat ay xemmem téef la yoo xam ne bi làmboo na ci weeru koor sëriñ bi wax ni wa yaqulu la azza wa jalla fi kulli laylatin min shahr ramadan thalatha maratin hal min sa'ilin fa a'taytuhu hal min taa'ibin fa atuubu alayhi hal min mustaghfirin fa ghafara lahu nee na suñu borom bi subhaanahu wa taala yàlla nee na mboolem guddi weeri koor wi yëpp guddi gu ne yàlla dina wax ñetti yoon wax ni ana ci yéen jullit yi woor ndax amul ci yéen ku am soxla di ñaan ma ko ma jox ko li muy laaj ndax amul ci yéen koo xamante ni bi dina tuub ma jéggal ko man yàlla mi seen borom daal di wax ni man yuqridu alxani xayra almaadum walwafiyi xayra alma xayra zalumi nee na ana ci yéen kan mooy lebal aji woma ji nga xëy ni bi du du ñàkk du mu yàlla yàlla mi nga xëy ni bii mooy aji matal ji ab dël aji matal ji kóllëre moom yàlla te du tooñ kenn kon loolu lim ci jublu mooy ana ci yéen kan mooy yëkkati alalam de ko dépenser ci yoonu yàlla rawatina nag ci weeru koor yi te xam ne lépp lu ci waay def yàlla dina ko fay ndax moom mooy alxani xayral maadum aji wama ji nga xam ni ñàkkul mukk wal wafi xayral vanum te mooy ki nga xam ni bii lum la dël moom yàlla dina la ko dina ko matale te du la tooñ ci dara xaala wa lahu fi kulli yawmin min chahri ramadan inda al iftar alf alfi atiqin min annaari kulluhum qad istawjabu al inqaab nee na bëccëgu weeru koor wu nekk suñu borom bi subhaanahu wa taala yonante bay wax ci weeru koor yi nee na bëccëgu weeru koor wu nekk saa su nit ñi dogoo am na junni ay junni kon ñaari junni alfi ñaari junni nit yoo xamante ni bii ni goreel nañ leen te ñoom ñépp kenn ku ci nekk sawara wala boog wareesal nañ na mbugal maa nga xam weeru koor yi ba weeru koor yi jeex saa suñu dogoo am nañ man nga ko jàppee kem ni mu ko waxee muy ñaari junni ñaari junni waaye arab dina waxee noonu jublu ci ay junni junni junni yu bari lu mu ca doon daar saa suñ dogee ci weeru koor yàlla dina goreel ay junni junni junni ñoo xamante ni bii kenn ku ci nekk la la la waran ci yow mooy ñu mbugal la te yàllaak weeru koor yu tax na yàlla subhanahu wa taala goreel la nga mucc ci mbugalum yàlla moomu kon weeru koor ni mu nekkee sang weer yi ni la nekkee ngëneel ci mbooleem weer yëpp kon nañ ci góorgóorlu bu baax a baax rawatina jëf ci lu baax rawatina jaamu yàlla yi rawatina ci lépp loo xam ne bii rek dana jural nit ki tuyaaba ñu bàyyi ko xel kon foofu la ñu teg suñu loom di ñaan ñëpp jàmm di sàkk ngeen ñaan ñi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu fi amaanillah ba àjjuma jàmm العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون